li war naa am bu yàgg waxuma sax pour artistes yëpp daje mais dañoo war a toll foo xam ne benn artiste dafa war a wootee feesal grand théâtre suba keneen ñëw suba keneen ñëw suba keneen ñëw comme ni nga koy gisee en France ak yeneen dëkk yi si àdduna bi yëpp loolu dafa war a am. deuxième édition bi ak première bi yëpp euh, ñun les acteurs dañu yàkkamti woon yu mel nii di am parce que suy mel ni sa la ñu xamee liggéeyu nit ki sa la ñu xamee producteurs yi seen liggéey fan la toll cinéaste seen liggéey fan la toll. ngoon dañ si contentement. nous sommes des acteurs culturels ah ñun événement yu mel nii daf intéressé ñu ciy dem parce que di nga tase ak seen naataangoo yi euh, dafa tase ak ay acteurs ay actrices ay cinéastes euh, ay ay réalisateurs parce que c'est notre monde c'est hein, suñu monde la ñun ñoo ko moom à chaque fois bu amee dañ si war a présent présent. pour nit ñi gis ñu xam ñu ñu xamante ak ñoom loolu dafay neex day baax suñu métier. liggéey rek moom solo parce que lu may wax ñun ñëpp artiste euh, benn lañ ñoo bokk ndey ak ci nekk da war a tendre la main ak sa euh, keneen pour ñu àndandoo nekk benn ndax liggéey liggéey bi ñuy liggéey c'est un travail de chaîne donc bu ñu àndandoowul jàppandaw nekk ñu benn bu ñu mën a am résultat bi ñu bëgg Té ci loolu lañ nekk aussi may remercier aussi waa euh, association 221 ñu organise teranga bi aujourd'hui nga xamante ne dañ ko daan gis ci yeneen i dëkk tey ñu am ko fii ci Sénégal suñu réew euh, kontaan nañ ci trop te gis naa ne euh, la nouvelle génération xale yi ñu ngi liggéey bu baax ay jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu ñu ngi am ay produits yu nice macha allah. ñu wax rek gars yi ngi góorgóorlu quoi ku yokku rek yaa wàññi wax démb day wax tey. démb moom jàll na ba pare ñu ngi ci tey ñu ngi xaar suba mais peut-être mën nañu jël loo xamante ni démb la woon te baax indi ko ci tey defaraat ko sax ba mu gën a baax xam nga parce que am nañu topp suñu ginaaw ñoom it ñi ngi ñëw te peut-être euh, ci yow ci yow la ñuy roy pour suba ñoom ñu mën a def dara. li leen wax toujours mooy rek que affaire bi il faut nga am patience bi ba pare.

pour mëna axe fi mag ñi agsi ndax euh métier la mo xamné mi éducation la laaj té boo éduquer niki dé fekk nga éduquer sa bop ba pare ndax mëno éduquer niki ki da fekk yow wo loolu mom ndax sa bop la ak nak population bi kon donc kenn ku nek li nga wara def def ko rek li kat bi way li nga wara def def ko parce que bu rombé rek romb na mais mais mbolo moy dole mais kenn ku ne def li nga wara def rek kenn bañ a yàq ñëpp pour mu baax